Ahmed Ndiaye jëf kuy naaw say om di dire boo soree dina jaaxal ñu bari Bassirou Diomaye Faye mi Ousmane Sonko waa këram yi tànn ba teg ko ni plan B ngir élection présidentielle yi 2024 gis na ay xiini mi na di ay duut yu bari ci candidaturam bi bi ci njëkk mooy du allié yépp ñoo ànd ci tànn gi ñu ko tànn ñaareel ba mooy gisuñu lu mu tekki lu bari ci wàllu politique maanaam poids électoral ndax yéenekaay bi gis ne njaw mang cee desandew xambin

leen a njaga si la ni ci xët mu njëkk source soit article bu code électoral bi moo nar a doon jur jàng ji ñu war a lijjante article boobee moo écarté Bassirou Diomaye Faye ndax bépp parti bu ñu tas parti boobee mënuta investir ab candidat njaga si teg ci ne waaye nag du loi bi tey du code électoral bi fenn fu mu aayee ku mu présenté ci élection fa mu fekk baax moom Bassirou Diomaye Faye di ca njagañaaw la Sénégal ne nañu li ñu gis ci Bassirou escroc la Pierre Goudiaby Atepa dafa bëggoon ab ci président Macky Sall ko Atepa dafa communiqué ci turu cadre Casamance yi loolee moo ñulug Macky ba tax mu tàkk ci kawam keroog ca Fatick moom jiit mi ba tey ci réew mi quotidien yéenekaay bi dañuy wax ne ci waxtaan mu doon séq ak yéenekaay bii di Jeune Afrique wax na fa ne amul benn regret ci traitement bi ñu def ci mbiri Ousmane Sonko tribune nañu fi ñu tollu tembe moom Macky yombul ci yoo xam a bi nañu naam Amadou Ba ma nga ca woon waaye Macky Sall da koo nuwaay nëbb ko dafa mel ne sax Amadou Ba àndu ca woon Walf Quotidien nañu Macky Sall mi ngi nappaaje Amadou Ba ak di ko écrasé dem na sax bu ko xamul li ngay jàpp mooy Macky Sall mooy candidat bi candidat bi di Amadou Ba Walf Quotidien mi ngi ñuy wax taxawaay bi nga xam ne kii di Abdoulaye amee na ko jëmee ci moom réseau des amis et sympathisants de Abdoulaye di Razat ñoo woote woon ndaje mu rëy keroog jagleel ko seen candidat bi di Amadou Ba ngir ndamam ci élection présidentielle yi 2024 yi ci xët mu njëkku la mandat moom Abdoulaye Tine mu fay wax ne président Macky wane na grandeur objectivité ak responsabilité gu mat sëkk bëccëg gi ñu jagleel àq ak yelleefi xale yi mu di journée internationale des droits de l'enfant journal Tribune xëy na ko ba dañu wax ne démb lañ ko doon màggal madame Diégui Diop directrice de la protection et promotion des droits ëllëgum réew mëne su ko ci àllub tàngoor yi bi ñu naa ca fekk ay desiti nit ñaar ñëpp ay xale lañu kenn ki ñeenteet la amoon ka des am juróomi at yéen bi nañu yére yu ñu soloon ak lam ya ñu takkoon ca lañ xàmme ñu xamee ci xët mu mbir meneen mu yéeme kër sëriñ Maodo si Dabax gi ci Ndakaaru moom la ñu ba jël fa fanweeri million ak ay takkaay di bisu yu toll ci ñaar fukki million ak juróom journal bi nañu am nañu ca waa a a